dama koy wax nag avec force parce que loolu laa gis mu def ko moo tax maa ngi koy sant bu baax mi sama jabar jooj di sant sama soxna yëpp di sant suñu jabar yëpp di ñaan yi na sax yàlla na sax a sax a sax a sax ba faaw ci daraje Mouhamed jërëjëf ak a jongo ma <laughs> nan jëm mbokk yi kii nag rakku Aziz la mbokk Aziz ñoo bokk nday ak baay kii moo topp ci Aziz baay Ndiaye topp ci moom kii nag moom lañ tuddee gàmmu gi ah parce que Italie la jógee ñëw fii Aziz ni ko yow yaay pare yow yaay marraine gàmmu gi marraine yàlla na yàlla nangu ziar. lan ngay wax ci Aziz ak jëf jure ji ñu bu baax Maam Ndox TV yow moom macha allah ci kër gi nga bokk avant tout ñoo ngi lay bu baax di la ziar suñu frère nga ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ginnaaw nag bu ñu sant yàlla jul ci yonent bi ñu ngi sant suñu wasila la Seydi Aboubacar jógu fan mi ci barsax Serigne Babacar si mi nga xam lépp moom la man ne su ma ñëwee moom la wax dëgg yàlla sama yaakaar tey sant suñu wasila wax dëgg yàlla di ko ñaanal yàlla muy Serigne Abdou Aziz Al Amine sant suñu ñaari waajur nag Abdou euh, Alaaji Ala Ndiaye ak Adjara Tulle yàlla guddal seen fay mel leen wér ndax ñoo boole ñëpp ñu nekk benn ñoo njaboot njaboot ji ñu judd nag ci ba Cheikh ñu yar ñu ci nàmpatal ji ba lii toll ni tey ñu am xol bi ñoom la ñu ngi sant nag sama borom kër bi nga xamante ni nag vraiment moo ma ànd ak moom accompagné ma Italie ba Sénégal mm-hmm. ñu ànd uniquement ngir gàmm dama ne leen bu ay Tiwaawoon amoon aéroport fi laay wàcc mm-hmm. su ma paree fi laay départ nam ma fenn Tiwaawoon rek laa bëgg ba tax na ma ñëw ci gàmm gi loolu de xanaa danga koo doon waaw koo doon ci sama baay El Hadji Aly Ndiaye mu doon ko ci maam Alima jigéen sama maam Alima jigéen doon ko ci ma Lamine Fatim Bakary mm-hmm. kon kooku loolu suñu deret la nekk mm-hmm. suñu sidit la mm-hmm. macha allah Abdou Aziz ale Ndiaye nag li ma wax lépp ñëpp laay wax rek mm-hmm. dañ koy doole ci yar bi respect bi bëgg ñëpp boole ñëpp ñu nekk benn Abdou Aziz lu jëf ji rëy rëy rëy patt gi fay na ko yar bi fay na ko bëgg na ñëpp boole na ñëpp li muy def gis ci dara yàlla rek la ci gis yàlla na ko yàlla fay ci barke yonent bu tedd bi barke Sëriñ Babacar Sy barke wasalaam ak turandoom al amin Abdou Aziz nit ku baax la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay bëgg na ñëpp maasale na ñëpp yor na ñëpp am teraangaam nag lekkul bàyyi kenn du sàmba laar déedéet lépp lu mu def. gërëm ngeen koy gërëm ci mbedd mi dafa mel ci ay bokkam la njëkki fuuf ndax ñun ñi Italie nga ñu nekk sëy ñu fa bàyyi wala azim waaye du liggéey liggéey ñu dara bi ñuy tëddee ko jóg suñu jëkkër ñu yor de waaye Abdou Aziz dañu daggal salaire CFA lay jël soppali ko euro muy Western Union ma taxaw di ko jël moom moo ma koy defal vraiment lu mu yor jox nañu ko duñu teral duñu may ay oto duñu yóbbu màkka ñu teral suñu kër teral ñu ci lépp ak Baye Ndiaye mi nga xamante ne moo topp ci man barki démb la jóge sama kër nit ku baax ku bëgg Aziz ku topp ci ginnaaw Aziz loolu neex nañu torop ñoom ñaar ñu nekk benn yàlla na yàlla faccat Masata Taaw Ablaye Ndiaye Babacar Ndiaye Mouhamed xale yëpp laay nuyu di nuyu nag jigéen ñi ndax buñu nee kër jigéen Miss Ndiaye jabaru Abdou Aziz ku jàpp ci liggéey bi la Baye Fallou Aziz la soon na ci gaam gi torop yàlla na ko yàlla fay ak suñu mag yëpp taaw ba caat Ndeye Ndiaye ba ci wëli ñoom ñëpp ñu ngi leen sant xale yi man koo nañ nekk benn jàpp ci liggéey bi vraiment Abdou Aziz daal yàlla na ko yàlla guddal fan. amiin dañ koy ñaanal yàlla may ko wér. ba mu dund ba doomam yi di ko aw. ci dara yonent ba ak xale yi ñëpp topp ci ginnaawam. macha allah. Aziz dañ ko bëgg sax ba xamuñu lañ ko lañ ko war a wax. dañoo am sax moom cofeer ak ñeewante ak yërëm biñ ko yërëm. vraiment yàlla na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér rek. ba yéen bii mu oyof loolu ndax moom xolam moo ko may. xol bee baax. kon sant nañ ñëpp ak sama doom bi ne Italie Aïda heure bii daaw mu ngi gisoon ngeen ko ah, vraiment tey maa koy ziar bu baax depuis Italie moom tamit mm-hmm. di ko wax ni bu déwénee yàlla nañu yàlla teewala waat ñun ñëpp fi ci jàmm ak salaam ci barke Serigne Babacar jërëjëf la marraine mu ngi noonu kooku mooy marraine gàmmu gi <laughs> jërëjëf laa ko defoon ren da ngeen a gën a jongama barke alxuraan man ku ma ne woon ñaar bokko leen ndaay du ma waaye xoolal lii yow lii eh, li nga ni nga ni nga ni non fay ñun duñ seen moroma ah, booy ñun yab noonu bu leen foddoo waa léegi affaire bi ni karawaat gi ngeen def seen yére yi moom lan la maa lan make bi kan la Eva gàmm gaa ngi noonu Abdou Aziz Ndiaye nii lay def doomi Abdou Aziz Ndiaye yaa ngi noonu xool leen ni ñu def rose Rose moom président Macky Sall nee kenn sol day ñëw ci yéen ko tamponné ko doog ko jox bàyyi leen li ngeen def Rose alxaaji mbéy jëm ak mam ndox ci bi